Happy Ahmadu الشيطان إبليس الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ذوي الردوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن بكم بيجي نيجي نزيار باخ دي ام بكتو لول دي سوات سين تلفزيون المريديا سين ايميشن تاسو سخار ني نيي باخ دي نزياره waaye di jiital ci nuyoo boobu nag sëriñ Sidi Mokhtar Mbacké xalifatul aam li taaifatul muridi suñu borom bàyyi ko fi mu yàgg fi loolu te wér ak mbooleem njaboot Sëriñ Tuubaa yépp ak mbooleem fa fi taaliba nekk rek ñu lay ñaanal suñ borom sàmm la te musal la rawatina nag ñi nga xamante ni ñooy taataan seen émission Tasawur Sixaar tey nag comme niñ ko baaxoo ànd ak seen rek seen seen émission Tasawur Sixaar ñu ñëwaat tey ak beneen façon boo xamante ne tey day ñëw. di dal ñaari mbokki taalibe yoo xamante ni ñu ràññee ko lañ lool ci ay xasida mu dëppoo lool sunu temu tey bi di njariñal xasida ak niñ ko war a jànge yépp ginnaaw loolu it danañ ànd ak Serigne Cheikhouna Sagnane mu tari ñu lenn mu taj wiital ñu lenn ay aaye alxuraan suñ ci paree it danañ ñëw ci li nga xamante ni nii danañ ko ànd ak suñ benn naataango élève bàyyi ko suñ Mbàkke Buso di président boobu di suñ Meesa Fall mu indil ñu lenn ci ay way rek yoo xamante ni day jëm ci njariñal xasida ginnaaw loolu it danañ ñëw ci benn barkeelu boo xamante ni dana ñëw dem ci public bi ñu ànd ak sëñ Babacar Fall moom it mu barkeelu ci li nga xamante ni moo di thème bi kon xam naa rek dañuy dem ci li nga xamante ni mooy njëkk point bu njëkk bi di alquran alquranu karim ci ànd ak sëñ seexu naa sëñaar بكرة وأصيلا هو الذي يضل يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عليهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا sadaqallaahul aziim jërëjëf sëñ Général Sëñ Ñaan ñu ngi koy sant baax di ko gërëm ci aaya alquran yu tedd yooyu ku dégg sa xel dina dem ne suñu borom ñu ngi fàttali jullit ñi di fàttali ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon bu njëkk ndaxte suñu borom fooy xool rek ci alquran bari na ba fu naan génne leen ci ak leer génne leen ci ak lëndam demale leen ci ak leer kon loolu muy feddali ne suñu borom bëgg gi bëgg nit ñi tegu yoon saatal mu mustaqiim moo tax du dañ ci mukk di fàttali nit ñi li nga xamante nii moo la nit ñu baax ñi daan jaare jaare woon bu njëkk rawatina nag li mu indi ci zikrullahi mu war na kon zikrullahi tudd yàlla lu war bépp jullit la rawatina nag kuy ab murit wala ngay doon koo xamante ni wala nga doon koo xamante nii yaa ngi wuyoo kon zikrullahi nag di dëppoog loolu tey li nga xamante ni moom lañ jël muy jàng maanaam njàngum xasida kooku buñ ko waxee danañ xam ne njàngum xasida ci zikrullahi bàyyi ko ci tudd yàlla ndax sëñ bi xasida yëpp booy xool ci alxuraan la ko jëlee amul benn bind xasida boo xamante ni nii soqi ko ci alxuraan kon loolu mooy wane lépp alxuraan lépp loo gis rek ñu koy jàng wala ñu koy def ci alxuraan la jóge mu dëppoog la kon day xasida yi kon tey nag ma dalal sëñ Modou Mbaye di ko nuyu bisimilah alhamdulilahi rabbi alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina muhammad wala alihi wa sahbihi wasalama tasliman kon ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar bu baax a baax a baax ci invitation bi nga xam ni defal nga ñu ko ci émission bi nga xam ni mhm. émission la boo xamante ni day mel ni lu soxal lool la sëriñ bi ndax mhm. xasida moom doon loo xamante ni soxaloon na sëñ bi loolu ndax sëñ bi dem na ba ni xasida yi kat mooy samay tànk te ay tànk képp ko topp ku yeggee nga yegg ca borom. kon ñu ngi doolee santwaat mboolem ñi nga xam ne ñooy personnel almouridiya bi ci li nga xam ne ñoo ngi koy liggéey di ko liggéeyal Serigne Touba di ko liggéeyal yoonu murid yëpp ci li nga xam ne mooy télévision bi ñu ngi leen ci sant bu baax di ñaan Serigne Touba yàggal seen taxawaay te yokk seen xam-xam ba fi ñu bëgg yeggale tele bi ñu yeggale ci kàttanu Cheikhul Khadim kon di nuyu sëñ Cheikhouna Diop di ko sant bu baax ci invitation bi nga xam defal nañu ko ci émission bi nga xam ñu ngi koy def mu jëm ci wàllu njàngum xasida kon xam naa ni duñ def leen lu bàyyi leen ñu ñëwaati bi buñ ñëwee ci émission bi ñu gën a leeral yi nga xam ni moom lañ ñu fi woowee. jërëjëf sëñ Modou Mbaye ñu ngi koy sant baati ko gërëm moom it mu mu nekk ci kuréel bi nga xamante ni mooy kuréel Touba bi ràññeeku loolu ci xasida yi lool am ci pëseef loolu di ci liggéey bu baax a baax ñu ngi koy dalal bu baax a baax may nuyu sëñ Mourtala kan moom aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi arrahmani arrahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen siyaare te di sant mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom lañ fekk si fii tey jii ci daara ju tedd ji nga xam ne dañ koo def muy daara Serigne Touba di daara xaside yi ñu ngi ci sant yéen ñëpp di leen sant ci jataay bi ñu toog tey ji ngeen wooñu ci ñu toog ci tey di barkeelu ci xasida yi xañ na sax ku la woo ci barab bu mel nii nga ñëw ci ak daara ji niñ ko xam xamee dalaa bëgg dimbale kon loolu it ñoo ngi leen ci sant di sant sëriñ naa ak ñëpp ñoo xam si rek ñooy saytu liggéey bi kon ñu yamale foofu suñu kàddu ba waxtu yi ñëwaat jërëjëf sëñ Moutala ñu ngi koy sant baax di am mbégte loolu moom it ci teew gi wax dëgg yàlla doon jàmbaar loolu moom it ci xasida yi boo gis xam ne mbindum maanaam gëstukat la ci xasida yi Sëñ Tuubaa yi bu baax a baax baax kon ngi ñu koy ñaan suñu borom sàmm loolu ca barkeel ko déedéet Sëñ Tuubaa kon xam naa lu ma def lu dul rek ñu ñu dugg ci li nga xamante ni mooy thème bi mu doon nag njàngam xasida ndax ko wax njàngam xasida da nga xam ne njàngam xasida dañ ko miine ci kuréel waaye it da nga gis ne ñii dañuy njàngam xasida durus lay doon ñi nga xam ne njàngam xasida di kuréel yi waaye tey Sëñ Modou mbay bu ñu bëggoon xam tey njàngam de mu di kuréel fan la sosoo ak yan naka la lañ ko war a defee bisimilah jërëjëf sëñ Cheikh na Diop kon laaj nga laaj bu am solo boo xamante ni yaakaar naa ni waxtu yi lépp dina jafe loolu waaye waxtu yi kem suñu kàttan rek kon njàngu xasida de moom day mel ni fi mu sosoo moom mel na ni fépp foo xamante ni sëriñ bi nekkoon na fa rek am na si ñoo xam te ni danañ ko jàngal xasida yi lu mel ni Mbacke Kajoor moo ngi danañ ko jàngal xasida lu mel ni gànnaar fépp fu mu ne rek danañ ko fa jàngal xasida kon li nga xam ne moo ci gën a ràññeeku nga xam ne ci jamono ji buñ ci wax muy lu mel ni njàngum xasida di jàngum kuréel mel na ni li nga xam ne moo indi loolu bokkoon na ci ku mel ni sëñ Massamba dan daan def maanaam bi mu xamee ni kat sëriñ bi njàngum xasida doon na loo xam te ne lu ko yitteel la lu ko soxal la ba tax mu day muy day mu dajale woon mag ñi di leen jàngaloo xasida kem ni nga xam noonu la noonu la ko sëñ bi yittewoo woon moo tax mu daan dajale mag ñi di leen di xam ne sëñ bi kat ginnaaw njàngum xasida ak ak bëggam la fu mu nekk tamit da ko fay wéttali moo tax mu daan dajale mag ñi di jàngaloo xasida yi ci biir loolu it bi nga xamee ni mu ngi leen jàngaloo xasida yi demoon na ba bañ yeggoon ci ci ay ma maqaam yoo xamante ni maqaam yu kawe la ndax xasida moom li ci li ci làmboo ci ay mbóot ak ci ay njëriñ kenn mun laa wax nu mu toll ba yeggoon nañ ci mag ñi sax daan nañ jàng xasida ci njàng moo xamante ni daan nañ dem ba toll ci ay àll yoo xamante ni daan nañ dem bay dox ci kaw ay péri sàkket wala ñu daan yéeg ci kaw ay garab ti daanu te dara du leen ci fekk te loolu dara lu warlu ko woon lu dul xasida yi rek moo ko waraloon ba tax na sëriñ bi fonkoon na ñi nga xam ni ay mag lañu woon doon jàng bu njëkk bi tolloon ci fukki nit ak ñaar ñoo xamante ni ñoo daan jàngal sëriñ bi xasida yi ci ci njàngum kuréel nga xam sëriñ bi fonk ko na fonk boo xamante ni daan na def sax moom bu ñuy jàng daan na jël ay xéewal di ko séddalee boppam di leen ko jox daan na jëlit lu mel ni ay parfum yu gën a neex di ko sotti njàng jàngkatu xasida yi tamit ba tax na mu dajale woon leen nga xam daanaka mag ñi moom dañoo féete woon ci sëriñ bi noo xam te ni day mel ni njàngum xasida rek moo nekkoon seen yitte ndax sëriñ bi moom demoon na ba nga xam ne sëñ Masamba noonu rek la leen def saa bu ñu xëyee mu leen bu sëñ bi yittewoo njàng mi mu woolu leen ñu ñëw jàngal ko ko ci njàng moo xam te ni njàng moo pëseefu lay doon muy njàng moo xam sëñ bi yittewoo na ko lool kon daal nga xamante nii sëñ bi fonk gi mu fonkoon njàngam xasida nga xamante ni nee nañ sax moom dem na daan na ko defal boppam nga xamante ni daan na toog daan na taxaw nii di yëkkatil boppam xasida yi ba ni mu ko ni ñu koy waxee ne am na murid saadax bu bu ci ràññeeku boo xamante ne nee moo ko njëkk yëkkati bokk bokk na si njëkk jëkk yëkkati suñu Mor Kona Mbaye nee nañ bokk na si njëkk ñi nga xamante ni ñoo njëkk a njàngum njàngum nga xamante ni yooyu yëpp day feddali ne e, sëñ bi fonk gi mu ko fonkoon ak bëgg gi mu ko bëggoon ne ci pour ñuy jàng xasida di ko yëkkati ci kaw waaye jër suñu motolaa bu ñëwee ci njàngum xasida fu mu solo waaye yi day baax tamit ñu xam naka lañ ko war jànge ndax xasida yi moom noonu la nga koy yëkkatee ak tamit ci yan sart nga koy teg nga xamante ni nii dafa baax xasida gi ngay jàng dëppook daaj ba ngay jàng ak it xasida ga xaraf yaa yooyu yëpp nga bañ koo yàq waaw <coughs> jërëjëf sëriñ Xaadim <coughs> wax aw bayit wu xaw wu yéeme lool ñu mm-hmm. waxee ni ila tawalifi yaqulu llahu asrara la ilaha illa allah kon loolu dañuy mën a rek daal di dem mubasharatan rek wone ni nit ki buy buy sikkar di tudd yàlla melokaan bi mu war a yor buy jàng xasida mën nañ koo yéegale ci loolu ndax sëriñ bi dafa xaajale ay mbindam ci ay xaaj yenn ñi mu def ko maddax te kenn ku ne xam ne ni maddax moom am na lu mu laaj ci boo koy jàng كذلك يني مدفك صلاته كذلك يني يني مدفك ذكر نخمني معنام تدو يلا لا كون يني خسيد يي امنا جي يني يو خمسي نون لمل واي بلا لوريت كم نينكو لاجي لغي تي جانجين وي اك ماتواي ويغا خمني موم نينكو وارا ديف بو خور ييغا خمني تي لا ني واي اي خسيده دا Euh, maanaam loo xam si day xaw àdduna mm-hmm. buñ bu ñu ko jàngatee dëgg dëgg ci mbindum sëriñ bi mm-hmm. boxoor yi jëm ci yooyu yëpp da ko laalu ko fenn mm-hmm. ngir bañ daray àdduna dugg ci li muy def kon loolu war nañ koo seetaat ñu ne ñiy jàng xaside roy ko ci loolu wattante ko ci loolu boo xoolee baxarul basit ak tawil ak euh, rajas ak kaamil xeeti bi baxar yooyu ci la ëpp lu muy woye ci la ëpp lu ñu waaye yeneen baxoor yi nga xamee nag day xaw a laal yenn kii yi daanaka da koy xaw a soriwaate kon loolu ñu bàyyiwaale ko ci xel xam ni bu ñuy jàng xasida dañoo war a góor góorlu ba dara luy nuru àdduna ñu bañ ko ci dugal dara luy nuru àdduna rek ñu bañ ko ci dugal ndax it euh, wax nañ ni wax nañ ni sëriñ bi seytaane waxante naag moom ci lu mel noonu wax ko ne ko mujjug jamono dana ñëw li ëpp ci ñi lay ñi ne fi man yow la ñuy mbubboo noonu nu mu mën a nekkee mu ne ko bu ñuy jàng bu ñuy jàng sa way yii dañ ciy dugal loo xam si bokk ci kon loolu war naa war warees na cee mën a góorgóorlu bu baax a baax a baax li sëriñ bi wax léegi ci point yu solo am solo yooyu ci li mu wax ci ni sëriñ Masamba ni mu doon def ak mag ñi xaal bi ñu doon toll xaal boobu nit mënu cee toll ci ay caaxaan waaw xaal boobu mënu cee toll ci ay caaxaan kon maanaam sellal bu mat sëkk ndax wax nañ ni comme ni nga ko waxee léegi nii ñi ko doon jàng da leen fonkoon ba nga xam ne bu sedd musaana jot sax mhm. da di wutal seen tiise yi bopp yoo xam ne day ñeme sedd bi pour fajar gi ñu koy mën di yëkkati mhm. kon loolu euh, maam di leen wan ne leen fajar gi jëmmi fajar googu jëmmi ki ñu ko doon defal mhm. waxtu woowu la koy déglu si kon loolu mag ñi ko toppoon it daan def loolu am na lu rëy rëy ci ci njàngum xasida moom kon loolu day da dañuy yamale foofu suñu kàddu jërëjëf ndax waxtu yi rek <laughs> ah. am na solo lool ndax da xasida ginnaaw sëñ bi du ko fonkoon ba nee nañ bu am na benn bis mu woote mag ñu ngi ñu jàngal ko waaye bi ñuy ñëw rek nee na ba mu ñëwee ba dee daa dégg benn waaju yu reetaan xaakataay mu mu ne nañ ko bàyyi kon muy wane ne xës de moom mënut a ànd ak ay caaxaan mënut ta ànd ak yenn yi nga xamante ni bokk ci te it day gis ne comme baax yi nga wax sànq ne booy jàng dafa am baax yoo xamante ni dafa déggu xës gi bépp xës boo xamante ni soo koy jàng wala nga koy jàng kuréel nii day tax nit ñi duñ teewlu seen borom te xës da dafa daaj bi nga koy jàng dafa war doon daaj boo xam te ne day yare képp koo dégg rek dalay yar nga mm-hmm. ànd ak teewlu bu baax ci sa xol mm-hmm. loolu mooy waral xasida gi mën na di di di di jariñ yow mm-hmm. ndax laa ilaha illa boo koy wax te ji ba taqal sa deret kon xasida noonu la war a mel sa diggante ak rek damm baat yi nga xamante nii moo baat xasida yi ak ngeen masque yi yëpp ngay soraale bu baax kon xam naa damay ànd ak sin moodu moom it njariñal xasida maanaam yi muy def ci ki koy jàng waaw njëriñul xasida yaakaar naa ni li muy def ci ki koy jàng moom mel na ni weesuwul xasida yi moom du leen lu dul tudd yàlla du leen lu dul julli ci Seydina Muhammad du leen lu dul alxuraan mhm. ndax dañ ciy jël tuuti rek ndax dafa sëñ bi dafa masa wa dafa masa wax mag ñi ne leen dama bëgg ngeen jàngal ma xasida mooy li sëñ Cheikh na job doon wax léegi bi mu wooy mag ñi ne dama bëgg ngeen jàngal ma xasida am ku bëgg ba ree ci li ko sëñ bi sàkku sëñ bi ne leen dox leen ba ëllëg fa dugg na ci tey nga xam ne bis boobu mu ñoo jàng xasida amit bis boo xamante ni boobu ñu ngi tabax jumaay njaarim nga xam ne boobu sëñ bi bi mag ñi di jàng mu toll ci xaal boo xamante ni xaal bu kawe la nga xam sëñ bi dafa toog parce que yàgg génn génn kër gi di laaj ana ana kër sëñ bi naan ana kër sëñ bi ana kër sëñ bi moom mag ñi ànd ak moom bu mu duggaat ci biir kër gi mag ñi wéyal di jàng di jàng mu ne sëñ Masamba Masamba ma Masamba ne ko Mbàkke mu ne ko neel ñuy jàng xasida yi sama borom nee na bég na ci ñoom mag ñi wéyal di jàng di jàng si yàgg mu ne sëñ Masamba Masamba mu ne ko Mbàkke mu ne ko neel ñuy jàng xasida yi yonent bi nee na ci ñoom mag ñi yegal di jàng di jàng mu ne Masamba neel ñuy jàng xasida yi malaayika yi bég nañ ci ñoom sëñ masa mag ñi wéyal di jàng di jàng mu ne sëñ Masamba Masamba mu ne ko Mbàkke mu ne ko neel ñuy jàng xasida yi sama borom nee na bu leen neexee danañ dem àjjana bu leen naxaree danañ ca dem kon yaakaar naa ni moom loolu dégg kawe lañ ci am bu sëñ bi waxee loolu tamit wëlbateeku ne damaa bëgg ngeen jàngal ma xasida am ku mu leen dox leen ba ëllëg fa dugg ci tey dañ mel li sëñ bi doon wax day ñëw loolu ndax xasida yi mhm. mel ne buñ koy jàng am na loo xamante ni waruñu ko ciy dugal mhm. day mel ni loolu daf ñuy yàqal kon kon loolu lépp loo xamante ni buñ ko ci dugalee gis nañ ne mën nañ ci bañ am benn ndax sëñ sëñ Tuubaa li mu wax leen ndax xasida yi saa bu ñu koy jàng malaayika yi dañuy wàcc bu ñu xoolee xol yi gis ni daray àddina new ci ak daray caaxaan dañuy wàcc di xëpp ay xéwal di ëpp di xëpp ay xéwal ba ngeen pare ñu dem mm-hmm. waaye bu ñuy jàng ne gis ne caaxaan ak àdduna mu ngi sa xol dañuy teewlu ba nga pare ñu jug dem seen yoon mm-hmm. loolu ci amee dara kon li sëñ bay jaxat naan gas ba gas ba dee tëbbanu yàlla lu koy lu koy waral yàlla nañu mooy kon loolu ñuy fexe ba xas de ñun ñu koy jàng mm-hmm. nañ fexe ba foofu moom ñu bañ faa nekk mm-hmm. fonk fonki moo xamante ni day dëppoo loolu ni ko sëñ bi bëggee woon mm-hmm. kon loolu bëgg nañu bëgg nañu ci ñëw tuuti su ko defee ñu gën ci leeral jërëjëf sëñ Modou <laughs> ñu ngi koy sant faa di ko gërëm ndaxte xës de kat ginnaaw sëñ bi nee na bu la yéy nu mu ko waxee ne bu la neexee ngeen dem àjjana bu la neexee ngeen dem loolu war na kenn ku ne bu koy jàng mu cay teewal mu koy teewal mu koy teewal diggante ak loolu kat mooy li nga xamante nii moo koy njëriñal àddina ak alaxira kon daal xasida boo koy jàng war ngaa bàyyi xel bu baax ginnaaw njëriñ yi bokk na ci nee na sëñ Abdou Hakim nee na ne képp ku moytuwut ñuy jàng xasida ngay wax la lay dugal sawar doo xam waaye it bu fekkee yaa ngi teewlu la lay dugal àjjana doo ko xam ginnaaw loolu foofu foofu la toll kon xasida moom saa yoo ci nekkee ci sellal ko rek sa dugg àjjana moom lu gaaw a gaaw gaaw la kon ma ànd ak seeg sëñ Murtada mu jàngal la ci waaw xam naa sëñ bi li mu wax moom mat na sëkk wax dëgg yàlla mu ngi jégalu bu baax a baax ci wax gi ñu ci waxaat sax waaye dafa bokk ci loo xam si dañ ko bëggoon a fàttaliwaat tuuti rek loo mm-hmm. ko jàll tuuti ci njariñ li mm-hmm. fàttali gi mooy dañuy bëgg ñu xool bu baax a baax sëriñ bi daaj yi ñuy jàng mm-hmm. yi nga xam moom lañuy ñuy wax daaj cosaan niñ koy jànge ak da njàngin bu bokkut ak dana tax ñu gën a góorgóorlu ci njàngin boobu. ak jamono jii ak ni gars yi ni jànge waaw maanaam boo xoolee njàngum cosaan boo xoolee bu ma jëloon misaal ci Mawaahibu hmm. sëñ bi ni mu ko nosee ak ni ñu koy jàngee hmm. bayit mu ci xëcc rek ci daaj bi boo ko demee hmm. bayit woo xam ne si da koo am madd boo demee ci daaj bi day dëppoog loolu missal bi mu ne bismillah boo demee da nga gis ci xëside gi day am laa daaj bi tamit bu ñu koy jàng dañ koy xëcc yan gis nga ko mhm. bila mana noonu lay noonu lañu ko toppe mhm. maanaam boo xoolee cosaan yi noonu day day gis gis nga lu mu njàng mi kii gi mhm. day dëppoog kii bi waaye bu ñu ci doolee li ci bokk rek day xaw doy waar <laughs> xekk ma bi bi topp mooy kuréel gi ñuy def wër bu neen ñaar fukki nit ak juróom ñu jàng benn jës bu ci guddi gi ñaari fukki jës bu ak ak juróom dañ koy jàngandoo ci guddi te duñ ko yëg maanaam kon maam xekk ma yu ndaw ndawaan yooyu dañ ko jor a bàyyi xel <laughs> ba noppi bañ cee caaxaan kon ñaareel bi beneen bi topp mooy bu dee nag jëmmi durus mi ak yëkkati gi loolu ñaari xaalal la comme ni mu amee ci ni mu amee ci ci sikkar rek noonu la mel tudd yàlla mm-hmm. ni sëñ bi leeral ci masaalikul naan ci ci ci fi muy wax ni ci wuute gi am ci ñaari yooyu ñenn ñi bu fekkee dangaa ngaa ragal ngistal dugg ci ak yooyu bay mm-hmm. boo nga wéet di durus sa néeg bu fekkee wóor na leen nag moom boo doon toog millions yi di la wër sëriñ bi rek ngay gis ci li ngay def mhm. kon boo mën ngaa toog ndax nit ñi di la roy di la déglu di ci am tuyaaba nga ci am tuyaaba benn bi jom mooy foowaayit yi nga wax mhm. ma tënk ko tuuti rek mooy sëriñ bi am mbindam makaanam fii la toll kon képp koo xam si fi ngay jàngee mhm. li ngay jàng jox nga ko cër fi ngay toll wax na ni kitaabati faaxat suyuxa tarbiya wa kulla xayrin wa suyuxa tarxiya waxaat feneen ni xasidati faaxat xasaidal kiram waxaat feneen ni nit ki bu fekkente ne am nga ko rek mhm. am nga ko waaye nag eh, maanaam mokkal nga ko wala nga koy jàng wala nga amal ko mhm. loolu tamit dama ci profité li nit ñi wax léegi ñu bàyyi ko xel bu baax a baax mhm. maanaam fekk xasida ak jàmbur mu teg ko nga jël ko naan suñ bi neen xasala waxul xasala xasala la wax maanaam amal ko maanaam da nga koy bind wala nga jëndi ko wala nga def ko naan amal xasida gi waaye waxul nga fekk mbindum jàmbur jël ko bi ay waji seen googu du jaagin da ngay fekk mbindum jàmbur da nga koy amal kon loolu bàyyi na ko benn ba kasfu yi nekk ci biir mbindum sëriñ bi dañu wat na di wattandiku naan xasida gi lii sëriñ bi lii la jublu ku koy jàng lii ngay am ndax la mu waxoon ca ca sikkira ba ngay xool wa kasfu naa asraruhu laysa yalix la wax wa kasfu naa asraruhu laysa yalix hunaa li kaw ni sirrihi bahran amiq maam loolu dañ koy war a bàyyi xel bu baax a baax kon loolu bëgg naa ñu bàyyi ko ci xel ni ñuy def ni ñuy jàng xasida yi léegi ñu bàyyi ko xel yor génn xasida naan ñun ñooy waa nangam ñun ñooy waa nangam loolu mat naa bàyyi xel dañ koy jàng te yàlla rek tax buñ bëggee njariñ ñi gën a bari ndax sëñ bi noonu la ko dëmbee ndax xasida yi boo bëggee indi li kon loolu it naa ne waxtu yi ñoo ngi tuub wér wér dina jur sax yenn saa yi da ngay gis kii jàngkat waaye nag kuréel la dum mm. kii kuréel kan la mm. waaye kii ab durus la ñàkk yenn saa yi gis ne ñàkk nawlante gi sax mm. mën naa feeñ ci diggante bi yëpp doo koy waral kon naa gis ne xasida gi moom li am njariñ li mooy japp ko ci jëmi señ tuba gi rek tax nga bañ bolé ak dara bu sa baat nexé yit xam nga baat bu neexee kenn ku la xam ne la way yit nga and ci ragal yalla ak tewlu ak dara ngisal bañ ci dugg moy waral ngay jang di li ngay jang nit ki nit ñi di bëgg njëriñal xasida yi tay ji bokku na ci da ngay gis ab jankat bu mag nit ñi dañ koy sopp lool diko bëgg bëgg ko lool diko jox seen alal di jox di fekk na lan xasida mo def ci mom loolu barke boobu xasida moo ko def ci moom waaye nit loolu nag bu mu ko tax di di def sabaan na na na na xam ne suñ boroom moo ko mbuuree la loolu mu ànd ci yàlla kon xam naa maa ñëw ci loolu damay ñëw ànd ak Serigne Meissa Fall moom it nga xam ne mooy président sëñ Mbacke Bousso bi mu indi ci moom ay way yoo xamante nii ñu ko waaja waajaloon mu jëm si njàngal xasida yi ñu ànd ak moom هل أتني ربي من naa wax ci njaaytin gi ñu jàpp ko salaamun aleykum maa ngi door indi ay bayit xasaayit yi naa wax ci njaaytin rek jàpp ko xasaayit yi daa njariñ yàlla def na ko ku sab xol gëmul mbaa muy bugg mbaati xam nga ko xasaayit yi moo gaaw lool ci fopp jëmm teg ca kaw ni bam jiitu raw maasam ga nit ñépp fonk ko damo gawce talat xol bu don gimo mbamo fay solo ca leer ba muy leeral lu fek yaangi jangu ko dalay teg ca yoonu njub nga jub boole cay jubal di jangal la jox afkar yu niw naati déggu ko fu ngay jànge seytaane du teew foofa day fatu tabur yàlla day wàcc yi wom foofa sotti ko yow mi teew fu ñuy jàngee ko may wax la teewlu ko ndebur teew no. yow mi tew fi ñuy jàngee ko may wax la tewlu ko nde boy teewlu feesal say bagaan dëkk jëfe ko yow mi jàng ko lay wax nga xamni nga war di mel ku nuy roy da ngay jiim kat di jiyu tuuti moytu ko yow mi jàng ko lay wax nga xamni nga war di mel ku nuy roy da ngay jiim kat di raw di raw moytu ko yarul yiwe set selal ta ak dal nga lamb ko te bul bul yeesal sosol sin bi moytu ko ba nak nag ku neexal waaye bul yàq na mbinde maxaari jafoo soppee ko max naa ma soppiku na leen jëf ta bun seetaan ko seetaan du setti mbir ko seetaan da ngay ñeetaan kooka ñel na salatan wa tasliman ala xayri mursalin di ñaan di ñaan fii fajog aajo amin yàlla def na ko jërëjëf sëriñ may sax ki indi am solo lol deug yalla leena na nañ ñëpp jëriñoo nañ ci da xasida de mom dëgg deug yalla kep ko jang rek am nga melokaan wo wara mel comme dinañ ci dik legi sax ak yit tewlu liggéey yëpp comme niñ ko waxe won legi rek ñu ngi koy sant bu baax diko gëreem waye ma and ak señ mo rek batay yit ci maanaam da nga ko de comme niko señ May sa waxe won legi nan la wara mel li nga xamanteni mu la war comportement wo fexe ba muccu ci lepp lo xamanteni da koy fakk waaw kon loolu ni leeral ci yaakaar naa du war a jafe ndax jànkatu xasida kat melokaan bi nga xam ne noonu la war a mel moom yaakaar naa ne buñ ko waxul dara sax war na war naa xam nan la war a mel ndax xasida yi am na loo xamante ni boo ci nekkee te dëggal ko te jàpp ko yaakaar naa ni nga war a mel moom day mel ni sëriñu tarbiya ci yow ndax moom li muy def ci nit moom doonul sax loo xam nit moo moo koy sàkku boppam waaye xasde yi ñooy def ci nit loo xam ne moom jëm boppam mënulu boppam ndax dafa mel ni maanaam ak njabootam daf dañoo yaatu lool ba nga xam ne tey jii ñu ñi wuyoo ay murid yëpp ci njabootu sëñ bi ci lañ bokk waaye damay damay wax ni jàngkatu xasida yi tey jii bu doon bu doon bu doon bu loo xamante ni lu doon loo xamante ni ab ab ab lu mel ni su la misaal mu mel ni ab kër la day mel ni mhm. tey jii jàngkatu xasida yi bokk na ci ñi nga xam ni sëñ bi moom daf ñoo beral loxo boo xamante ni moom yéemi na lool ndax mhm. برنا لوم وقت خس دعي لملني وجه الكتاب بتيه من زل يوم فوق صلاتين خبلت وسومي كن كوا بدي بني سن برم دفعل سما خس دعي مغنا كوي جولي كوني نعو أكور كوني نعو تكين كنا خم جولي أكور لو أم لو أم دول اللول تيجان سن برم سن تو أبوني فاقول اللول تخس دعي كن يا كناني نين ورنا نيو غنا خمار سن بوك تيت بوك نكلم وقنا جان كتو خس دعي بو ألقي يوم الخيام لين ين خم مو دنيني سولم أي مبخنا يو خم تنجان ورس ليدون nga xam ku leen gisee da nga xam ni kay jàngkatu xasida kon jàngkatu xasida tamit bu ñu ko waxee firiwul ni ñi nga xam ne ñooy jàng kuréel kese moo tax ndax am na ñoo xam ne suñu borom baax dimbali maam dim deful leen ñu doon ay jàngkatu jàngkatu kuréel waaye mi ngi leen def ñoo xam ñuy doon di ñoo xam dañuy durus wala ñi nga xam dañuy jàng jàngum aw ndax ku mel ne sëñ Cheikh Fall Xataab sëñ Tuubaa moo ko yar te jàngum aw mii def kon li ci am solo mooy jàng booy mënti def li ci sëñ bi soxla mooy sellal gi ak déggal gi mm-hmm. loolu moom mooy li nga xam ne fu mu la mënta yóbbu rek ci yow la moom kon ñun ñi nga xam dañuy jàng xasida war nañoo góorgóorlu ba lépp loo xamante ni bokkut ak li sëñ bi bëggoon ak li sëñ bi jubloon ci xasida yi mm-hmm. ñu bañ koo gis ñun mm-hmm. maanaam bañ a nekk ñoo xamante ni dañuy gis tey ci xasida yi bu bu ëllëgee fu ñuy waxtaanee àdduna wala fu ñuy waxtaanee lu mel ne ay làmb wala kenn du la ci jiitu ku la gis xa gis ni kii kat dem waroon mm-hmm. jàng xasida tey gis nañ ko ci lii kon day mel ni da bëgg a boole sëriñ bi ak leneen tax sëriñ bi moom xajut ak leneen ci xol moom li ci mooy xasida yi képp koo xam nekk nga ci sellalal te dëggal te xam ni lépp loo yóotu bu fekkee àdduna la Sëriñ Tuubaa nee na am na ko am naa ko ba mu doy sëkk te doyuma ko dara mhm. képp koo xam ne sàkk nga ko ci xasida yi yaakaar naa ni moom boo ko amul rek ci yow la kon ñun ñi nga xam ne dañuy jàng xasida nañ gën a góorgóorlu ndax ginnaaw Sëriñ Tuubaa nee euh, na def na def na xasida yi mu doon loo xamante ni maanaam dalay maanaam mën mën na lay yeggale ci li nga xam nit da ciy dugg xalwa ci lu dul xasida yi bu dina la ci yeggale ci lu dul ngay dugg xalwa moom yaakaar naa ni kon xas yi lu kawe la kon li ma ciy gën a soññ sam bopp lu ci gën a soññ mboolem koo xam yaa ngi ci ne mhm. ñu gën a góorgóorlu te di jàpp xasida yi te xam ni lu ñu mënta am ci xasida yi rek ci ñun la mhm. kon loolu laa doon am lu ma ci doon dolliwaat su ko defee ñeneen ñi ñëwaat si ñu dañu koy sant baax di ko gërëm parce que ginnaaw sëñ bi moo waxal boppam ne man du ma def loolu lu sama taalibe kon sama taalibe war naa ko def loo xamante ni da day tax ñu ñu ñu ñu ñu xeeb kon te taalibe bu ne war naa maytandu ko maanaam nit ko ne na ngay présenté sëñ bi rek da ngay fexe ba mu rafet rawatina nag ab jànkatu xasida war naa doon koo xamante te ni exemple la war doon fu mu jëm fu ko gis ku ko gis naw ko bëgg ko ngir lan li sëñ bi def ci moom kon bu melokaanoo melokaanu jukko yu ñaaw yi nga xamante ni yellu ci moom mu koy mel kon mu ànd ak sëñ Martada moom it mu laal ci tuuti. si jërëjëf sëñ Cheikhouna euh, sëñ bi indi moom mat na sëkk wax dëgg yàlla xanaa dañ koy séddale ci ñaari melokaan rek. te euh, melokaanu njëkk yi mooy melokaanu yi boo koy def li nga war a mel mhm. ak yow sa jëmmi bopp noo war a mel jamono bu ne mhm. ñaari melokaan yooyu ñoo ci am mhm. xaala bi ngay toll bi ngay jàng xasida gi ak boo génnee jàngatoo ko maanaam jàngatoo ko moo ko waxee mooy boo noppee ci li ngay def ñaari xaala yooyu ci la bokk bu njëkk bi moom comme comme na ngay defee lu baax boo doon sikkar te tudd yàlla ndax tudd yàlla moom moo li sëñ bi defar ba mu baax mu dugaloon ñu ko ci xasida gi mu yomba wax lool ak maanaam li ci jiitu mooy boo ko toogee di ko def boo ko manee bu fekkee da ngay boo ko manee li gën mooy dangay ngay war a jublu xibla laab ba noppi di xeeñoo lu neex ndax ñi koy déglu si malaaka yi yërmande yi ñëw di ko déglu si mm-hmm. ba noppi nag loo wéet wéet wéet wéet nga def ko ngir jëmmi seet yàlla suñu borom rek tax mm-hmm. ndax it comme li sëñ bi wax léegi ci baytu woowu tuwassilu aqlaami ilallaahi aabidan mm-hmm. bilaa xalwatin wallah maanaam loolu Liko waral moy bu fekkante ni da nga bëggoon a ci yalla ba noppi am mbir moo xam si da ngaa waroon di dugg ay xalwa ay nangami nangami nangami weer wala nangam mu dog laa yeggale ci loolu mu ñëw mën laa yeggale ci lu ngay def loolu kon boo koy defoon nga am benn yëg-yëg loolu nag dama bëgg ñu li mu ci bëgg wax mooy ñu roy ci sëriñ bi sëriñ bi nuñ koy royee mooy lépp lu mu daan def jëm yàllaa tax lépp lu mu daan def waaye da daan xel kërug adduna gi moo mbindam foo ci demee da ngay fekk lu ci ëpp bu bindee da ngay dégg mu ne matlabul fawzayni kon bàyyi na xel àdduna bàyyi xel àllaaxira nuurut ni kon li ma bëgg wax mooy nga boq rek yokk toog benn place rek daan na xasida yi dong lay jàngit du yaakaar naa ne du du yëfi bi maanaam da nga war a boole adduna bi ak àllaaxira boo jàngi wut ay awxaat muhaddada yoo xam ne si da nga koy jagleel jàngum xasida boo noppee nga daal di def ci yeneen yitte ndax sëñ bi bi muy sas mag ñi ci ci ci njaarim mhm. di leen jox projet Touba bi mhm. maam jumaa ji wax na leen ci waxinu gàtt mhm. maam nit bu la sañalee faw mënal la kon da ngeen di góorgóorlu jéem a yor seen bopp mooy tax nit du leen mën a naa nga mën a li suñ bi wax nag ci melokaan yi ci biti daanaka noonu dong la nit moom da nga war a fexe ba li nga gëm nga ne ca maanaam kenn bañ laa gis nga bolli nga mel ni naa naafeq yi ndax eh, ñoom ñooy sonal yàlla yàlla suñu borom bi mu commencé aay eh, baqara daa melal ñetti xaala benn xaala bu njëkk bi mooy eh, jullit ñi beneen bi mooy yéefar yi kenn ko ne xam ne waaye ki ko sonal mooy ki nga xam ne kenn mënoo xam fu mu bokk bu teyee nga bokk wax waa xasida bu ëllëgee nga bokk ci ñeneen loolu moom nit ku ne war na koo wattandiku mm-hmm. kon loolu bokk na ci li nga xamee ne daal jàpp naa ni buñ ko doon jéem a def di ci góor góorlu bu baax a baax a baax a baax maanaam xasida yi danañu gën a danañu gën a beneen bi mooy li la fekk si loolu lu yittee loolu la maanaam la mm-hmm. fekk si mm-hmm. bi may jàng xasida yi ko def ngir yàlla ma dem ba mu mm-hmm. yàgg xéewal fekk si ma bi ma xéewal fekk see waruma oj bi dañuy wax aw mm-hmm. loolu nit ko waru ko def te loolu day mel ni day xaw a bari mm-hmm. maanaam nga dem ba mu yàgg nga toll benn xaala rek ko gis jàpp ne di yàgg kii bokku loolu te war nañ ko bàyyi xel nga xam ne jëriñu waaw xasida yi mooy ko xam ne day tarale day tarale saa soo teewee jàpp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 ñoo ngi sant bu baax a baax ci jataay bi suñu soxna di sant sëñ Mourtala di sant sëñ Modou ndax yaakaar naa liñ fi liñ fi indi ci ay kàddu yokk ko moom xaj na c'est-à-dire doomu aadama suñu borom bind aw làmmiñam lu ne mu mën ko wax rek wala lu ñu wax lu ne mu waxaat ko wala mu waxaat ci leneen waaye daanaka euh, wax suñ suñ suñ xasee wax la ñuy wax te muy dëpp lu am njëriñ ci biir xaside yi loolu daanaka doy na sëkk liñ fi génne mat na mooy gis nañ ne wax ji jànkum ngir yàlla feeñ na ci te loolu mooy li ci ko ci àddina feeñ na ci te mooy li ci mënta ñàkk wut wut wut ci ngërëmal suñu borom feeñ na ci mm-hmm. te mooy mooy moo moo yitte jëpp loolu nag su ko nit ki maasee ci li muy def day daal di am lu mu doon wut ci ngërëmal suñu borom mm-hmm. kon yaakaar naa loolu euh, doy na sëkk ginnaaw bi ñu déggee ci biir euh, ci waxi suñu Mourtalla Kane ne ay kii am solo yoo xam ne lépp day wane ne mm-hmm. ab jullit ab jullit rawatina ab murit lépp lu muy jëm di ko def rek da ciy jiital suñu borom ndax xasida yi li ci wax moo ci nekk maanaam ni mu mënee yëkkatee nit dafa am luy nuru ak yëkkatiku fekk ne ak mbag ak daanu la ndax suñu borom bu bëggee toroxal nit da koy yëkkati ba mel ne jant ndax bu ko daan la ñëpp yéen diw moo yëkkati woon da moo yëkkatiku woon daanu te loolu day am ci lu bari te sëñ Tuubaa dane inna salaamata min al gururi wa huwa al amri asxaabul umuri mm-hmm. ak woru ci lu baax dong nga koy gis doo ko fekk feneen mm-hmm. tey lu baax lu mu baax baax ak war day na ca biir te buñ ko sellalul ay dumay suñu borom moo ci juddoo ndax koo xam ne sa bind yegg na ci nga naan yaa man yaa man yaa man midaad yi kadima man maahu qad shahinu min qudama bind mu ñuy lëkkalee ña deewoon ci ci xare faatu won am ci garab sahid daa jooju su fekkee tol na non ku koy yëkëti ngay joylo ay nit ñu baax bi ndax waxtu bi nga yëkëti xasi jine jinee ngi lay déglu jine ju baax malaika ñu lay déglu hadi qasaid yi qulub al anbiya maa al malaikati inda rabbih ida kadax ida kataxtu daxta arsul baaxi wasatax malaayku xibaar te lépp di di waree ay jëriñ kon léegi nan a amee pas-pas di jàng xas de mën a boo dëgg yeneen xeeti pas-pas yu ñaaw yu sew ban yu la mën a tilimal tàbbal la biir sawar nga di ko nga di ko yittewoo mm-hmm. loolu kon moom xel nanguwu ko mm-hmm. waaye nag dana am mm-hmm. li si mbir laa wax it am solo mooy bañ a ëppal saa suñu nit ki ne diggu dóom xeetu yonante bi dañ leen a tagg ci diggu dóom ëppal baaxul ci dara loo ëppal rek daanaka xam ne moom jàpp na gis moo dem na ba tax dana gis koo xam ne si sëriñam la nii waaye bu waxee moom da nga gis ne kii sëriñ moom tegu ko fenn mm-hmm. ndigalu sëñ sëñ bi jub ne sëñ na moom da nga gis day xeeb loolu doy la lool mm-hmm. wala am ku baax ku ñëw ci barab mu ñëw ñëpp di jub di ko nuyu waaye gis moom day toog mu toog jàpp ne moom ñu wóolu weesoo weesoo dina am mm-hmm. loolu a dong la ñi nga xam ne dañoo jàpp ne la nañ xam benn loxo bi ko doon bind jenn la kitaabati min rabbi lawhi tunqalu la yamtali fiha nabiyu yaqilu sama bind maa ngi koy doxalee ca lawhul mahfuz ku am xel te yeewu te suñu borom gërëm la doo ci sikk sàkk loolu képp koo xam ne nii wóor na la wóor na la noonu jàppe a waxtu a wax te suul siraat yi mbindum suñu tubaal boobu jawhar nafis moo tax ñi nga xam ne wuñ ko ci la bokk te boo leen laajoon seen farata yi diine seen farata yi julli attee sama farata duñ ko xam moo tax nga bari ñu gis gis ñu bari bari waxtu bi ñuy jàng sa xas di nga gis um bëri ku métte métte am na ñoo xam sobe mën nañ koo toolaat di jàng xasida nii mhm. war a sangu farata ñëw toog nii di jàng xasida mhm. kon tilim googu lan moo ko néew benn mhm. ñàkk xam ak ñàkk dégg waaye sëñ Tuubaa lu lu mooy yonante bi wala lu ko génn jëfu jëf waxu te lépp moom xasida lépp xasida yi moom ak njub la ak sell la moo tax ku ci nekk ci ñun wala jiital ji ab xol sell te bañ jàpp ne kenn yaa ko gën li li mu wax la am solo la mooy mbari dañ ñoo xam ne seen lépp seen guddeeg bëccëg waskurullaha zikran kasira wasabbihuhu bukratan wa asila waaye daa wax feneen ne na nga tudd yàlla lu bari waaye nag sa pàggu defu àddina moom na nga koy bàyyi waale xel ndax soo ko bàyyi waale xel da ngay dem ba jàng xasida yi yóbbu la nga yegg ci zikrullahi su ma neexee ne zikrullahi ndax boo ne jàng xasida yi day am ko toppee ne ah kii mbaa daa daa bëgg daa bëgg jegee li muy wax lépp ñi ñi ñi ñi ñi jàng xasida déedéet jàkka gi mooy zikrullah loolu tamit metti kenn nit ku ne la ngay def ci lu baax ka wax la lay setal saa su moom nga war di di bëgg ka lay jay ndax danaa boo ne moom lam wax moom mooy daa bëgg am li fi yow wala bu bëgg laa tag mbaa lay ay soppe ay xeet la mooy noonu ak ak mu soxor ak ak ak noonu ak soppe bu réer ñett ñi dañoo mën a daw bu réer soppe bu réer du loo wax la ne moo tax ku taxaw wax la dëgg boobaa da metti kuy jàng xasida day sellal te jiital la war a jiir te suul sixaar ci la ñu bàyyi ko xel jawhar nañ si ci la ñu bàyyi ko xel dem nañ ba am ñoo xam ne seen koppal yóbbal leen ñu ne allahu akbar war a tari fatiha te tàgge xasida te nu mu ko si tubaab bi am te loolu yabaate kon loolu lépp dafa mat doon bàyyi xel soo ko waxee ñu bari danañ mel waaye nag dëgg moom moo mel noonu saa su ne moom li li suñ tubaab jiital moom ngir ñu jàppale ko ñun ñëpp dañuy wax na mu doonee rek ngir jëmmi suñ tubaab te looy bàyyi xel ñun ñëpp te xam ne ngërëmal yàlla loo koy maye du ay caaxaan ndox ji ay sàkket xam ngeen ne du ay caaxaan loolu xol bu set wécc moo ko may may may waaye xam nga di jàng xasida oto bi nga dugg ànd nga ak ñaari jigéen ñoo xam ne soo àggee tibaas ba fa fay sa wet nga ñuy toog yow la ñuy hmm. ay sëñ ci biir njàng yi ngir ñu gis la gisee ngir mandargaal yow yaa def nanga moom nanga hmm. ana sëñ Tuuba ana sëñ Tuuba ana ana liggéeyal sëñ Tuuba te liggéeyal sëñ Tuuba génn liggéeyal yoon di rek suma borom hmm. te li ngay def jaamu yàlla la kon moo tax nañ gën a góorgóorlu li sëñ Tuuba waxam nag addina moom jërul àllaaxira kon kuy jàng xasida nga bàyyi xam ne addina jërul àllaaxira àddina juru alaata mooy li ngay li ngay as xasida yi lu nekk ci biir ndax sañ jubaa dina ku fi ñëw ngir àddina man amal naa ko mën naa koo jox ba mu doy de sëkk hmm. waaye ku fi ñëw ngir ëllëg danga xam ne moom suñu borom jagleel na mu ci ak ceeb bu duur hmm. kon nag àddina juru alaata tàyyeel jërul ñàkk hmm. mooy waxtu wi ngay tàyyi ci sellal ñàkk sellal la cay juddu musiba lay doon bànneexit jërul gàcc mooy waxtu wi ngay jàng xasida ngir euh, koo am koo àndal cib sëy wala yu mel noonu yu mel noonu yu ñaaw yooyu nga xam loolu am na ñu koy dund ñu koy dund rek a tax ñuy wax ak wattandiku leen waaye du jaage ne ñun ñii wax dañ leen gën wala dañ leen yem wala dañuy solution ay déedéet dañoo bëgg rek fan buñ taxawee ci kanam sang ba ba jàkkaar moom kenn du ne ko bu ta ku tàllal sa loxo mu jox la li nga foogoon ci moom waaye bari nit ñoo xam ne dañoo waru waru boobu nag fii la la ci ki tàmbali fa ko jëm nag baxtukum maan ala kaddin ba daal li xabi ala ridal mu abada ngërëmal yàlla dama ko daa daa am dama sonn flaw boobu nag ku ci nekk soo jógee di ma liggéey ci ngay jëm mënoo ko da ngay war a toj bu baax mën ngaa ñàkk li ma wut sa diggante sa bopp kenn yóbbi ko ak yàq yóbbi sa bopp بلغتني ربي leer na nañ ci solo lool yoy pas-pas yu ñaaw ca ca ca ca ca bon lool nit ku ne war na ko bayyi rawati na jankat xes ñu xam bu baax fi seen sellal xasida yi bu baax jox ko gëddam di def rek ci yàlla tax ndaxte jàng jàng xasida ba yaakaar ne yow kooku yaa gaa gën ñëpp koo gis di commencé nuyu sa sa ca ci baaraam loolu yëllul ci ci ci ci benn jàngkat xasida comme ni ko suñu matalaaw ak ni ko suñu moom waxee rek def ko rek ci yàlla suñu borom tax def ko rek ci yàlla suñu borom tax ndax loolu mooy li nga xamante nii comme ni ko Babacar waxee boo taxawee kanam suñu borom ci kanam kanamu Sëñ Tuubaa mu mën laa jox lu teey loo xamante nii dañ ci mën a am sa mburu àjjana te kat lim wax la nañ la képp koo xamante ni mën na maa féete kor yama xiyaam jël nit tuul ko àjjana féetewuma fenn kon xasida yi boo ko jàppee te seetlal ko mu jëmmam ji rek tax te bañ ko ànd ak benn pas-pas bu ñaaw suñ borom mën na mën na dimbale nga bokk ci ñooñu kon ma jox suñ moodi rek moom it ma tàggoog mbokk yi ñu tàggoog suñ mbokk yi suñu kàddu gu mujj moom yaakaar naa du leen dul ñu gën a ñu gën a góorgóorluwaat te gën a jàppaat mm-hmm. te xam ne dañ ñoo dénk loo xam ne dañ ko moomut muy xasida yi mhm. ndax xasida yi moom sëñ Tuubaa moo ko moom mhm. mooy xool ko mooy mooy xool ku ko neex mu def ko ci soxol nga mën koo jàng kon ñi nga xam ne tawfeex gi nga xam sëñ Tuubaa tawfeexal na ko ñi nga xam ñooy jàng xasida moo xam mhm. ñi nga xam dañuy jàng kuréel wala ñuy jàng di jàng jàngu abu wala ñi nga xam dañuy jàng jàng jàngu rajas li ci amal solo sëñ bi rek mooy sellal gi ak dëggal gi ak boo koy jàng def ko tey yàlla rek tax te bañ ci te bañ ci wut daray àdduna ndax mhm. na moom li sëñ bi wax rek mo ci mhm. am na ko ba mu desi soxlawu ko soxlawu ko deewu ko dara kon ñun yaakaar naa ñu ñuy jàng xasida mhm. moom yaakaar naa ne war nañoo ba bu mu doon suñu yite nañ koy jàng ta yàlla rek tax ak yonente bi ak sëriñ Tuubaa dañ gën a bu baax a baax ta baax te mom ne lep moom yaakaar naa lépp lu waay di ut mo xam àdduna la moo xam alaxira la lépp sëriñ Tuubaa def na ko ko rek na nga seetaat sa kon ñoo ngi bu baaxa baaxa baax sëñ Cheikh naa Diop ak mhm. ñom sëñ Babacar Fall ñom sëñ fall sanya ñom sëñ murtala mi tok ci teway bi nga xamni tew nañ ko ci mhm. jotay bi nga xamni jotay bi yalla rek moo moo ko tax ak yoonte bi ak Serigne Touba kon ñu ngi leen ci dole sante bu baax di sante mbollem personnel bi nga xamni ño nek al mouridiya di mhm. di ñaanal promoteur bi nga xam mooy sëñ Atou Diagne suñ borom yagal ko ci kanamu mbooloo mi yagal ko ci kanamu télé bi ba lim naal te bëgg ko ci xolam te bëgg ko liggéey Serigne Touba ci yoonu murit te jaarale ko ci télé lepp Serigne Touba jappalé ko ba mu amee ko ni mu ko bëggee mhm. lépp loo xam ne xalaat na ko ci lu lu koy jëmale kanam yàlla na dem ba toll ci fi Serigne Touba tolloon suñu borom nga xam dana ba dana ba diggante ak suñu borom danaan ko defal rek mu def suñu borom Serigne Touba tolloon na foofu ci moom kon Serigne kon moom lépp loo xam te naal na ko te bëgg ci télé bi rek bu koy xalaat rek yàlla na fekk Serigne Touba dogal loolu mhm. ndax bu bu ko amee njëriñu julli yëpp lay doon doon njëriñu murid yëpp ndax télé Serigne Touba la kon ñu ngi ñaan ñëpp Serigne Touba di ñaan Serigne Cheikh Serigne Mokhtar Mbacké lim naal ci liggéey Serigne Touba yàlla yàggal ko fi ba mu eggali yéeneem ba fi mu bëggal yo yéegale ci yoonu lislaam yi yàlla kàttanal ko dëgëral ko ba mu éggale ko ci coobareem asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu jëf sëñ Modou mbay ñu ngi sant wax di ko gërëm moom it dem mbégte lool ci ci ci ci ci dalal gi ñu ko dalal moom it wax dëgg yàlla muy ab jànkat xis bu mag moom it di góorgóor loolu ci xasida yi ñu ngi ko ñaan loolu suñu borom nangul ko ko ci mu ànd ceeg pas-pas boo xamante ni dana ko làqal fu làgg àggut ni ànd ak suñu motala moom it mu def kàddu gu ñu ngi leen di sant bu baax a baax di sant mboolem waa daa xes yi xisbu tarxiya ci njiital sëriñ Atou jaañ yooyu ñaanal suñu borom mu yombal leen leen mbir yi ba lépp loo ngeen yéene rek ci liggéey sëriñ bi sëriñ suñu borom jàppandal ne leen ko ba ni ngeen ko bëggee ngeen amee ko noonu ngeen amee ko nu ko kawe kon daanaka rek dañuy sant rek sant ñëpp di sant mbokk taalibe yi ñu fi fekk ñëpp rek di leen ñaanal suñu borom defal leen ak jàppandal mhm. tey dañ ci tënk suñ kàddu rek te ñu gën a fonkaat sëriñ bi mhm. ndax sa fonk sëriñ bi mooy fonk am mbindam mhm. mooy fonk yàlla mooy fonk lépp kon daanaka nañ ko fonk li sëñ Babacar wax nag dafa am solo lool mooy sëriñ bi moom boo koy bokk boo ko boo koy jàpp da nga koy jàppe ci wet gépp waaye do xool fa mu la arrangé rek nga jàppe ko foofu maanaam da nga da nga koy jàppe ci wet gépp mhm. loolu mooy tax ay mbiram gën a jàppandi ci yow mhm. waaye njàngum xasida mi nag xasida yi mom yàlla suñu borom da cee defal sëriñ bi lo xam ne si defalu ko kenn loolu mooy bokk na ci léegi liñ gën a mën a laal loxo mooy ku fi bind am bindam ko fi ay gone yu ndaw ay mag ay jigéen ñëpp takkaayu ngir jangal la ko rek te yow néewu fi sax mhm. loolu moom yàgg na ci histoire pour bu ñu ko gisee jafe na lool maanaam mbind rek nga bind say woy bàyyi fi ay nit topp ci di ko def di ko def di ko def te soxlawuñ ci dara moo xam ñoo ngi lay gis moo xam gisuñ loo kon loolu benn martaba la kon képp ku koy defit nga jéem a sàmmanteeg rek lépp loo xam ne si jàpp nga ni bu sëriñ bi toogoon sa wet doo ko def rek mhm. buñ ko doon defee noonu xasida gi boo ko tiimee di ko jàng moo xam da nga koy yëkkati moo xam da nga koy durus mhm. moo xam jàngum aw la moo xam lu mën doon mhm. nga jàpp ne lii ma tiim mooy sëriñ bi rek kon yaakaar naa ni loolu bu boobaa doo ko doo doo ci def leneen kon ñoo ngi sant ñëpp sant tamit euh, sëriñ Maysa Fall ci abyaat yu am solo yi mu fi def euh, mooy suñu raïs vraiment ñu ngi sant bu baax a baax rek euh, abyaat yi lu am solo la tënk na li ñu doon wax lépp kon wasalaamaaleykum warahmatullahi taala wabarakatuh barakaatu tahali xaali bi bihi xaali bihdi hiyaali bi ak suñ ci wax jeri jërëjëf sëñ Matala ñu ngi sant baax di ko gërëm lool wax dëgg yalla am na solo lol kon dal xesde yi ni nga waxe rek ki durus kii jang jàngam aw ki jàng ki jang jàngam kurel ki nga xamanteni ni jang bu nga ko mën a li ci am solo moy nga ko jàpp te yalla tax te bañ ka bu rek dara selal ko comme ni ko gars yi waxee nga ne ginnaaw mbindum sëñ bi la comme ni ko sëñ Matala waxe jàpp ko jàppee ko sëñ bi kitaabati taduru taxta al arsh baynal kiraami aawatan fil arsh loolu loolu la sëñ Tuubaa wax ginnaaw mbindam day wër ci ron kon loolu nit ku koy jàng war ngaa bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax a baax baax kon li ñuy def rek muy tàggoog mbokk yi waaye nag ginnaaw loolu it ñuy xamal ne émission Tasawudu Sixaar yi ginnaaw tey xasida la ñëw ñu ngi ciy yaatal ñëpp bu baax nga xamante ni bépp daayira rek boo xamante ni yaa ngi jàng xasida rek ñu ngi lay woo nga xamante ni bis bu am émission rek danañ fexe ba noo mën a ñëwee ñu ñu ñu jël la nga bokk ci plateau bi. kon xam naa nag balaa ñu tàggoog yéen dañu leen bàyyee kuréel maternelle boo xamante ni ñu ngi jàngee fii ci daara ji ñuy waa Rawda ñu bàyyi leen ñoom ñu indil leen leen ci abyaati Sëñ Tuubaa ci kuréel maa ngi jàngum kuréel. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا خير هدي del